mbokki jullit yi mbokki senegal asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ñi ngi sant yàlla sunu borom subhaanahu wa taala mi nga xam ne moo bind lépp moom lépp yilif lépp di joxe lépp di xañe di maye dara féetewu kaw nekkul ci kaw dara nekkul ci ron dara nekkul ci peggu dara nekkul ci ndeyjooru dara nekkul ci càmmoñu dara nekkul ci wetu dara moom lépp lépp nekk fa moom sunu borom bi nga xam ne xalaat mënu koo dab dara mënu koo nataal kom ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngalee bi xilaafi aw kama xaala sallallahu alayhi wa sallam di julli bu tedd bi muhammad alayhi salaatu wa salaam ak saxaabaam di yeesal sunu njëbbal ak sunu taalibe ak sunu cofeel ci mawlaana abdullahi wa xadimi rasulihi sëriñ tuuba di ñaan sunu borom ci kàttanam ci xéewalam ci taraangaam ci mën a mayam mu dollu ñu ak bëgg sëriñ bi dollu ñu ak cofeel ci moom xiirtal ñu ci moom defal ñu bëgg ko ba bëgg su ma nee ëpp mu ëpp ba ñëpp xam ne daa ëpp ndax lu mu ëpp gën a baax ndab moom lu mu gën a fees rek di gën a baax du doy mukk di ñaan sunu borom ci barke bi nante bi sallallahu alayhi wa sallam ak weeru gàmm yu ñu nekk di ñaan ci saxaabaam yu tedd ya fukki saxaaba ya nga xam ne ñoom la yàlla njëkk a bégal ci àjjana ginnaaw ba ñu jógee xar badar xaswatu badarin muy alxasratu mubassara bil janna tàmbale ko ca sayduna abubakar siddiq jaar ci sayduna omar ibnu xataab jaar ci sayduna osman ibnu affan jaar ci sayyiduna ali ibn abi taalib ba ngay wàcc ba ca ka ca mujj ñoom saxdu ñoom sax saxdu ibn abi waqaas abaa ubayda ibnu jaraax ak ñu demee ni ci ñoom abdurahmaan ibnu xawf ba muy fukk waaye wàcc ba ci mbooleem 313 yi nga xam ne ñoo xare woon badar ñëpp wàcc ba ci mbooleem ñu mas a xare ànd ak rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ba ci saxaaba yëpp di ñaan ci seen barke ak mbooleem ku fas ñëw di liggéeyal yàlla ci kaw suuf nga nekk ab xutbu ubbul xawsu baa nga nekk aw awtaat wala abdal wala ku mën doon wala nekk waliyu wala nga nekk nit ku baax di ñanti barkeb jullit ñëpp fu ab jullit nekk ci kaw suuf si sunu borom defal ñu bañ gi nga xam ne ñoom la wahabi si bañ sëriñ bi ibaadu rahmaani bañ ko sëriñ bi sunu borom soppil ko ñu ñu bëgg ko ko népp noo xamee nit bañ ne sëriñ bi yàlla borom def ñu bëgg ko noonu sëriñ bi fu waaye ne ci kaw suuf te bañ sëriñ bi wala ne ko yàlla def neexu la nanu sunu borom may ñu ñu bëgg ko bëgg opp googu yàlla nu yàlla soppil mbooleem ñu bañ sëriñ bi seen bañ googu ak seen contre googu yàlla defal na ko ñu ñu bëgg ko ko te fuulal ñu ko te yàggal nu fi tamit lu ñu fiy gën di yàgg de ku gën di bëgg ba ilaa yemil xiyaamati kenn mënuñu cee jële nag kenn kuy xas bay ba nga xas kuy saag bay ba nga saaga kuy jëw bay ba nga jëw kuy def ay wax ngir bataille psychologique ndax nit ñi bee ba nga def ko waaye bëgg gi moom day yokk rek saa su bës bu set dara mënuñ cee jële di ñaan sunu borom bañ gi nga xam ne moom la wahabiste yi bañ sëñ Tuubaa ak ibaadu rahmaan yi ak seen catégorie yi nekk Sénégal ak waxtaan gañ koy waxtaanee seen groupe ya ak seen site internet ya ñu ubbi ak ña leen toogal Amérique ak ña leen toogal France ak ña leen toogal réew Arabie Saoudite ak mboolem réewi golf yi ak ñi leen toogal Italie di ko def ci internet di ko ubbi di saaga sëriñ si saaga yooyu yëpp ak xaste yooyu yëpp ak jëw yooyu yëpp danañ ko bëgg sëriñ bi tey ñaan yàlla mu defal ñu bëgg ko ko waxtu wu nekk lu luñ gën a mën a saaga rek yàlla saaga wu ci nekk yàlla na ñëw ci noonu ñu bëgg ko sëriñ bi bëgg ko lislaam bëgg ko mboolem ko ne ci tasawuf ba adduna yi tukki nag kenn ci àddina munta fexe ba ñun bëgg ñu bëgg sëriñ bi muy wàññi ko day yokk rek te lu ko waaye bañ nag ñu bëgg ko ko moom alhamdulillah waaw dee leen xëy di bañ rek ñun ñu xëy di ko bëgg rek di ko xëy di ko bëgg rek lu ngeen ko bañ rek ñu natt ko boo dee une tonne ñu def ko milliard tonne bëgg ko sëriñ bi te kenn du ci man dara nag te amul leen lu ngeen ñu ëppale ci àdduna nag ba keroog yàlla di taxaw taxañ dendam bii nii waaw euh, di ñaanal ñëpp jàmm di ko sàkku ci yéen sunu waxtaanu tey muy presque ñeenteelu tontu su ma juumut wala troisième xamatuma nu mu toll ndax ñu ngi ko leen di tontu amul limite waaye ñuy desuwaat rek di leeral mbirum wahabisme mbirum seen seen doom jooju nga xam ne ñoo ko meññ mu nekk Sénégal muy Ibadu ak seen seen sëdi ci desaat muy atajamaxu diinul islaam yi ak waa alfalaax yi nekk Sénégal ak kuréel gi nga xam ne moom la Ahmad Lo jiite ñu tudd ko daalul istixaama wala daarul xabaa ay sax la war a tudd loolu mooy turam dëgg-dëgg bi bi mu lool ak mbooleem ku leen nekkal ci réseaux sociaux yi ñu ñëwaat tey di leerlaat seen mbir te duñ ci tàyyi duñ ci tàyyi fu seenug lëntal àgg sunug leeral dana fa àgg waaw ba ci des mooy di yee nit ñi rek pour nit ñëpp yeewu senegal dafa jot nit ñi yeewu am xel tey settantal nit koo xam ne saa bu ñëwee na dangaa bon la lii bon la lii bon la lii te lem naa danga kaa bon la lépp moom ca la xëy ca la juddu ca la yaru ca la màgg ca ay sëriñam juddu ca lañ ca lañ màgg ay téeréem looloo ca nekk kooku ndax des na ko déglu lépp lu la ab ibaadu wax ibaadu rahman wala wahabist lu mu la man di wax lu mu la man di bonalal moom da caa juddu moom ba noppi yaru ca di ca dund di ko noyyi muy oxygène kooku moo tax lu mu naa la bon la bu ko lijjanti wëyal rek sa yoon kenn du leen gestu euh, Sénégal ñoom njëkk naa am ay catégorie yoo xam ne lu ñu woon ay ibaadu ay kuréel la ñu woon yu fi nekkoon ñoo fi jiitu ibaadu rahmaan jiitu foo habis yi ñoo leen fi jiitu woon ca président Senghor jële woon na senegal gi ñeent fukki boromi xam-xam ñeent fukki boroomi xam-xam yoo xam dañoo nekkoon ci réew mi di jàng ba jàng lépp lu war a jàng ci xam-xam ci li ñuy jàng ci ci turu xam-xam mu génn leen fii ne leen da leen di yóbbu bitim réew fekk booba lam ci jublu woon mooy jàng leen ba buñ dëlsee téere yi fi mag ñi téléphone ñu weddi ko yi mag ñi leerloon ci diine ñu weddi ko mu nekk quarante boroom xam-xam ndax ñooñu jàngoon nañ téere yi xel mu rewaaye lépp lañ amoon loolu kuy gëstu xam ne amoon na jamonoy Senghor ñeen fukki boromi xam-xam am na ñu bari ba ne kaa dem nañoo bañ waaye jëlee nañ fi ñeen fukki boromi xam-xam ca jamono su ma ne boroom xam-xam ndax bu dee ibaadu yi amul ay borom xam bu dee wahabis yi amuñu borom xam-xam ñoom saqaafatul xaqliya lañ lañ leen defal nga xam dafa am tuuti luñ leen jàngal ñuy wax rek waaye ñoo amuñu xam-xam ña fi Senghor jële woon nag dañoo amoon xam-xam ndax jàngoon nañ téere yi ñu jàng ci réew mi pratique yi jàng ngirum imam malik ngirum ngirum imam abu hanifa ngirum imam ahmad jàng ngirum imam shafii jàng tasawuf jàng lépp seen war jëli leen fi xam nga ko mel noonu boo ne yaa ngi koy jàngale mooy am na loo nar fekk booba dañoo bëgg a rey làkku arab ci réew mi rey téere yi nga xam ne moom la fi seyxul xadim bindoon sëriñ alxaaji malik si ba ca si abdullahi ñas yar bindoon yar sénégalais yi di leen jàngal ñu fas yéene fee jëlee loolu loolu mi ngi tàmbaloon ci président Senghor ndax culture l'islam bu set bu sell boobu tubaab bi doon xeex te sëriñ bi taxaw ne du ngeen ko fi xeexee moom ñoom chaque jour dañuy topp dañuy soppi dañuy wut stratégie def ay tactique pour dégager loolu léegi duñ ñëw di jàpp kenn baa ñuy colomal kenn dañuy jël suñ biir yóbbu leen ci biti du ci seen bopp yi alhamdulillah ndax njabootu sëriñ gi fi nekkoon dala ko ci Cheikh Mouhamadou Moustapha Mbacke Cheikh Mouhamadou Fadil Cheikh Abdoul Ahad Cheikh Abdoul Khadir Cheikh Salihu jàngal nañu lépp lu ñu war a jàngale pratiqué nañ lépp lu ñu war a tra pratiqué képp ku fi nekkoon ci réew mi di yàq xamal nañu la jàng nañu yow yaay kan ba ñu xam la ñun réew mi fii fi lañ dëkk Sénégal fi lañ juddoo fi lañ yaroo soxlawuñu réewum jàmbur li fi nekk lépp ci réew mi senegal penku ba sowu Saalum ba gànnaar xam nañu ko lu fi waaye def rek bee ba xam ne xam nañ ko bàyyiwul noonu ku fi nekk rek ñooñu ba ñu delsee ci réew mi nag tàmbali nag Moustapha Guèye mii ci la bokkoon menn tontu bataaxal dama koy wax mu leer loolu amul làq-làqal ak ñeneen ñu bari ci ñoom mat nañ ñeen fukk waaw mat nañu ñeen fukk ndax euh, euh, moom na ginnaaw bi génn na ca génn na ca loola ndax ba mu xeexee ba xam ne affaire bi mënul dafa génn dem adapté boppam fenn yim daan weddi ci tasawuf yépp mujj na di ko dëggal ndax jaarwaay bi nga xam ne moom la ahlu tasawuf di jaar sufiyanke yi maqaama yooyu yépp dafa daan weddi waaye dem leen ngeen xool discours yu mujj yi yépp la dëggalaat te yam ko weddee woon mi ngi ñu garde yim ko dëggalaate mi ngi ñu garde kon moom bokkoon na ci waaye da caa génn moo tax sëriñ Saalifu Mbakke radiyallahu anhu mas naa wax ne Moussa Gueye ko am sens la loola booba loolu lay junj ak yeneen ñooñu ba ñu ñëwee bi ñu door a ñëw ci bi ñu jógee réew bay door a ñëw dañoo waroon réew mi nag di wër sëriñ si di leen kole ñu ne sëñ Fallou kat ma nga Touba alxaaji Mouhamadul Fadilu mbakki ma nga Touba moom Sénégal yi dañoo wax ne bu nee mu taw mu taw bu ne du taw du taw ñu ne nañ dem seeti ko bu ñu waree sëriñ si bu ñëwee di la kole comme jàng nañu arab jàng nañu téere yi waaye ndekte ndeysaan am na luy ñu xamut ñu def délégation ñëw Touba bi ñëwee siyaare Cheikh Mouhamadul Fadil di waxtaan ni ko ñu ko digg na ni yow saa bu la neexee mu taw nangam nangam te digg naa da wax tawal mu taw ngir bëgg koo kole am na ci ñoo xam sax yeggoon nañ ci bind ay bataaxal ci araab ngir ne dañuy kuréel Sëñ Fallu waaw loolu amoon na fi yu baree bare saa waaye saa bu ñëwee rek Cheikh Mouhamadou Fadil jubbanti leen keroog bi ñu ñëwee jotaay ba am na ci koo xam ne sax Sëñ Fallu dana ko yow day maag sa maama maase sa maam waaw sa maam maa yow ne ko yow maag sa maam ñoo maas am na ci koo xam ne sëñ Fallu loolu la ko wax Cheikh Mahamadul Fadal sëñ Fallu ne leen waaw adduna bi képp ku fi yàgg yàgg xam fi jant biy fenk yàgg fekk fi jant biy fegge yàgg fekk fi jant biy sowe su gëjee taw taw taw taw taw a ci topp waaw ne képp ku yàgg fekk fi jant biy fekke yàgg fekk fi jant biy sowe xam nga ne bu gëjee taw gëj a taw gëj a taw taw a ci topp waaw ab nawet su toogee lu yàgg tawul lu ci topp taw topp ci ñoom ñëpp ñu daan fi suuf seen xam-xam seen psychologiquement seen philosophie àggutoon foofu sëñ Fallou xam na ne su gëjee taw tawa ci topp te kii mayee yàlla la te moom ab jullit la te wóolu na ñaanam ndax kuy dunde lu lew di liggéey di jaamu yàlla war nga am yàqin ci sa borom ne boo ko ñaanee mu may la rawatina nag mu gëj a taw sëñ bu gëjee taw tawa ci topp daane loolu rek la ndax ki ñëw di contre danga koy jox rek lu tolloo xelam waaye la ca sama du ci dugg ak ñoom ndax loolu nit tefes gu mu péegul doo ko jàngal doo ci waxtaan ak moom comme ñoom agressé wuñ ci mbir moomu agguñ raxasuñu seen xol ba mën a àgg ci suñu boroom ba xam dëgg dëgg dëgg dëgg nit jullit ni mu war a mel yonent bi salaay dafa wax ne ittaqu firaasatul mu'min fa yan yansuru bi nuurillaahi jullit dëgg sax sunu yonent bi nee day leen day leen day wattan ko njortam ndax moom day day day day xool ci leeru sunu borom asa wa jalla waaye jullit bi nga xam ne def na lépp lu ko yàlla digal di jaamu yàlla di jullee ko woor di def ponki lislaam aji màkk def lépp di dimbali jullit ñi di liggéey liggéey bu lew tabax jumaa ci moment boobu ñoom ñu ñëwee sëñ Cheikh Mouhamadou Fadil fekk na jumaay Tuubaa di noppi te jumaay waa ca yooyu jamono dépassé nañ ci juróom-ñaar téeméeri million CFA nga xam ne booba bit sa Sénégal sa àggutoon foofu waa ci mën a dajale nit ñu yëkkati juróom-ñaar téeméeri million tabaxal ci yàlla am néeg kooku bu yaanee yàlla yàlla du ko nangu comme ñoom péeguñu tefees boobu nag mu jox leen rek lu leen doy ci saaxir ne leen adduna bi képp ku fi yàgg yàgg fekk fi jant bi fenke yàgg fenk fi mu sowe xam nga ne su gëjee taw tawa ci topp ànd ak nag moom wóolu gu wóolu yàlla ndax yàlla foo ko tollu mu tollu la fa waaw waaw foo ko toll mu toll la fa waaw ana indi sànni abdi bii faleesun bi ma saa jaam bu nekk maa ngi lay fekk fi sa njortu toll foo ma laaj rek ma fekk la fa ñoom nag ñoom yeewu teg xam ne seen boroom dañ koy jaamu te gëm nañ ko wóolu nañ ko te nee na su ngeen ma ñaanee ma may leen nga xam ne ñoom aaya yi ñuy jàng sax dégguñu ko wa isaa saalaka xibaadi anni fa inni xaribun ujibu daxota daaxi isaa daxaani fal yastajibu lii wala yuminu bi la yàlla ne sama diggante jaam ñi amul amul amul lu fi dox ñaan leen ma may leen yéen na ngeen jub ci aw yoon ku jub tege ci aw yoon boo ñaanee may la moo tax Cheikh Mouhamadul Fadil bi mu dundee lislaam dundu diine jaamu boroom jege ko dara doxul digganteem yàlla mu dégg aaya bi ñaan suñu borom mu di ko may ka nga xam ne ne moom ñàkk na bopp ba ñu yàq bopp bi naan ko nit mënul dara ak nangam nangam nga sori yàlla bañ a ñaan yàlla yàlla du la may waaye Cheikh Mamadou Fadil gën leen yeew ba dugut ñoom ci loola dafa leen ne rek jant bu yàggee fekk ku ko fi yàgg fekk jant bi yàgg so ku ko fi yàgg fekk soo ko jëlee taw xam nga ne taw a ci topp ndax du ñàkk dem di ñàkk taw di continuer moom ko def ak yeneen catégorie googu noonu ñoom ñoo fi nekk jàngal bi ñu fi nekkee nekk fi euh, señor dooleel leen ñu ñu may leen ay autorisation ci réewi naar yi ñu dem di jëlee ay asaka ñëw di taxawal première jàkk yi fi ñu ko taxaw ñoo ko fi taxawal ba ñu ba ba Assane de njëkkee financé jàkkee Grande Mosquée bu Dakar lañ ko njëkkoon financé kuréel googu ñoo ko lekk ñoo ko lekk xaalis bu bari la woon ñoom ñoo ko lekk ginnaaw bi ci la Euh, euh, buuru Maroc bi wax Senghor na ko comme Sénégal am na ay ay kilifay diine ñoom nañ ko financé nañ dajale tabax jàkka ji ci la wër Sénégal gi nag ñu dem fu ñu dem ñu jox leen ba ni ñëwee Tuubaa Cheikh Mahamadul Fadil mu jox leen un million ba bale warlu ko sëñ maa Mamoun joxe murid yëpp fi ne ko cooy yooyu jamono joxe ñu dem Kaolack Cheikh euh, Baye Niass joxe ñu dem Tiwaawan ñu si Abdou joxe ñu dem feneen ñu defe na ba Grande Mosquée Dakar taxaw waaye lañ ko njëkk a financé catégorie googu noonu ñoom ñoo ko lekk catégorie googu nekk fii di def ay théâtre di saboté sëriñ si di weddi tam xarit di weddi tam ñarit di weddi nangam lu nu ñu dugg ci ci lu dul benn la ndax jaamu yàlla moom li fii jant baa ngi fenke penku di di soy sow amul ab bis bu la neex nga ne danaa ci woor danaa ci julli danaa ci jàng alxuraan danaa ci tudd yàlla waskurullaha kasiran laxalakum tuflixoon yonente bi nee na alayhi salaatu wasalaam uskurullaha xata yaqulu annaka majnunun na ngay tudd yàlla ba nit ne kii daa dof mag ñi nag jàngoon nañu loolu dégg ko xam ko ñu xam ne Sénégal fi mu jëm baaxul ñu ker créé fexe ba bis ñu wut ay bis yoo xam ne dañuy fexe ba téye nit ñi ci ak jaamu yàlla ndax bisu tam ñëri képp koo xam ne wóoroo ko jàngoo alxuraan jàngoo xasida jàngoo leneen julli woo bi leneen leneen loo man a def looloo ko gën fokk dangay ngay defi leneen moo gën dem ca musique ba moo gën dem ci leneen dem ci leneen dem ci leneen jokk ci ak mbokk topp toj seen njaboot loolu am na lu ko gën lu baax la de lu baax moom bis yëpp nga ko mën a def baalonte ci ak bis yëpp nga ko mën a def waaye nag bis yu mel noonu muy bis boo xam ne li ci daje ci ay ngëneel ñëpp xam nañ ko ci histoire ci téere yi ñuy jàng ñu def ca loolu da caa gënati ndax yàlla ci boppam moo fi indi ay waxtu indi fi ay dat nañ bàyyi naan jaamu yàlla guñ date jaamu yàlla yëpp dañ ko date amul genn jaamu yàlla ci kaw suuf guñ datewul du heure bu la neexee julli tisbaar du heure bu la neexee julli timis du heure bu la neexee julli tekusaan yëpp dafa am ay waxtu yuñ koy def yàlla moo fi indi ay dat date ko indi jant beeg weer wi ñuy dox ñuy dox dat yooyu yux sii leneen naxaara yàlla boo xasisan wa samsa wal xamara wa nujoomu saxraatin bi amri alaa lahul xalqu wal amru tabaarakallahu rabbul alamin wa jaxanaa layla wan nahaar aayatayni fa maxaw na aayata layla wa jaxanaa aayata nahaara mubsira yàlla bañ na ko ba guddi sax da cee date lu ñu war a def bëccëg gi mu date ci lu ñu war a def mu ne guddi gi naa leen ko ngir ngeen ci man a nelaw di noppalu ko jaxal naa nawmakum subaatan wa jaxal naa layla libaasan waaye wa jaxal naa nahaara mahaasan bëccëg gi mu ne ngeen dem liggéeyi wuti lu ngeen def paa ngeen nekk fi di liggéey jël ay asaka ak di jël yi di ko lekk jël asaka liggéey du liggéey saa su ne ba ngeen koy liggéeyee tabax jumaa ak jàkk li ci gën mooy nga ñàkk liggéey dem bàyyi ñëw tabax jàkk dem liggéey ca marché ba ñëw tabax jàkk dem defari say mbir jaay ko ñëw tabax jàkk waaye jëli asaka ñëw tabax jàkk moom ci ibaadu lañ ko mën si dégg ak wahabis bi kon yàlla moo njëkk date ay waxtu wajaxnaa layla wan nahaara aayatayni fa maxoon na aayatan wajaxnaa aayatan nahaara mubsira waaye lu mu ci teg li tabtaqu fadlan min rabbikum wa li taxlamu adada sinin wala xisaaba pour ñu xam heure yi xam lu ci nekk koor dafa am date layatul xadar am date gàmmu am date tout waxtu yëpp amul benn bis bu amul date ba yéen sa am ngeen date yi ngeen di jëli asaka ji du saa su ne dafa am date bu ngeen di jëli asaka yalwaane dem Arabie Saoudite dem Koweït dem Saoudi dem Imarat ay date la ngeen dem jëli asaka ñëwaat toog ci réew mi di ko lekk seen jàkk yi bu ngeen ko tabax da ngeen ko wutal dat tegu xeer da ngeen ko wutal dat seen waaraate da ngeen ko wutal ay dat seen conférence yi ngeen wutal ko ay dat te lépp ngeen ne da ngeen di liggéey lii ne waa léegi ngeen ne léegi ci woote julli wala ku ci woote woor wala ku ci woote nangam teñ defal ko yàlla rek ngeen ne bi daal foofa na tege waaye catégorie gu njëkk googu nag alal ji dafa bari woon ba ñu ëppoon doole ibaadu yi wahabiste yi ñu nekk ci réew mi rek di yàq deru sëriñ si di def ay théâtre yu bon bu ngeen di fàttale ko Ahmad Xiyaan Caam yal na ko yàlla yërëm am na ci émission yi mu doon def am na lu ci jotoon a senn ba mujj mu wax Ousmane Mbow ne ko yéen daan na leen wax ne leen li ngeen di wax ëpp na li ñuy def ëpp na dégg nga ndax dafa ëppoon théâtre bu ne def nañ ko ngir ñaawal sëriñ si daal di wax ne ñoom rek ñuy jullit ñi di def ay conférence ak ay ndaje ci guddi gi ci Dakar léeg-léeg ñu dem Kaolack léeg-léeg ñu dem Ndar bi ñu nekkee ci loolu ba 1975. 1975 nga xam ne akbaru wahabiyin ala alal ard ci kaw suuf si wahabi bi gën a ci kaw suuf fii ci Sénégal ci la fi jóge woon dem Soxondee jàngi 1975 ndax booba la Soxondee tàmbali ubbi ay buntam ne daa defar ay université defar ay école pour na day woo nit ñi pour ñu ñëw jàng fa fekk na booba tubaab yi sant na leen ñu taxawal wahabisme feddali ko gën koo taral yéefarloo ñi bonal ñii ayibal ñii yàq ñi ba loola amee nag. ci la nag Ibaadu daal di ñëw nag caraax ci géew bi kuréel gee tàmbalee tas am ñu ca dagge daal di ñëw dugg ci Ibaadu première fondation moom Ibaadu ci réew mi ña ci nekk ñëpp ci kuréel gee lañ dagge ndax dañu am mu yoon am ay jafe-jafe ndax dañ doon lekkante ci biir ak xaalis bi affaire bu tas ñu benn pàcc ba dagg ñëw dugg ci Ibaadu Rahmaan koowaa bi njëkk dem saxoodee jàngi 1975 pour bu ñëwee nekk ay wahabisme foofu lañ tàmbalee bi ñu dikkee ba 1980 nag révolution islamique bu Iran daal di jug saxoodee nag tubaab yi gën koo soññi américains yi soññi ko francais yi soññi ko ne ko nag il faut nga wut benn façon rimu boo xam ne danga ko jëfandikoo mooy taral ñu ñaari ñaari mbir lañ la ci sas benn bi nañ ko def ngeen nga woote jihaad ku fi jàng si école yi na ko jàngal jihaad jàngal ko xas jàngal ko jëw jàngal ko saaga jàngal ko tourisme jàngal ko ràngoo ay bomb dugg ci jàkka ak marché yi kalaate ko ci kaw nit ñi nga xam ne ku fu jóge rek loolu moo ne sa bopp bi loo wax ñu ne la yow yaa ximaar yaa ximaar yaa kaafir waaw yaa musrik ñu jàngal leen loolu ci université yi ñu jógee fi dem foofu jàngi fa loolu ci lañ dem formé 1988 Osama Ben Laden al Qaida ñu ñu yee ko mu nekk biir Saxoodiya bi ñu def guerre contre Russie moo doon jiitu nekk ci kanam américains yi jox leen ay ngànnaay renforcer leen jàngal leen dafa leen ay entraînement ay tadribat askariya ñu di ko def di ko def di ko def ba mujj na Ousama Ben Laden moom daal wëlbatikuwaat nag na day dal ci américains yi Arabie Saoudite ne ko déedéet mu ne leen ko ndax yéen mu ne leen yéen yéen a ma waxoon ne ndax dañ ne ko woon euh, euh, euh, Amérique suñuy xarit lañ français yi suñuy xarit lañ mu leen déedéet yéen yéen ma jàngaloon ne ku defu nangal ko ab yéefar la te ñi ngi ñu doon rayloo ñi leen gën a bon ñu daal di ñu tàmbalee xuloo foofu ci la assemblée leen génne foofu nag dem Yaman jóge Yaman dem Pakistan ba ni mu nekkaate Afghanistan ba problème yi ni mu xewee ci 11 septembre boobu ñu sos Al Qaïda 1988 mi ngi sosoo biir Arabie Saoudite bépp kuréelu diine bu ne ci kaw suuf di rey ay julit di yàq ay jàkk di sulli ay bàmmeel di yàq marché yi biir soxoodee la génne fa la génne école yooyu la génne école yooyu ñu fa defoon nga xam ne boobu dañ leen di jàngal lekk jàngal leen naan jàngal leen xas jàngal leen jëw jàngal leen saaga jàngal leen ayibal bépp kilifa diine ba nitu boroom xam-xam bu dëppoo ñoom daal di tarif na ay ci yu bari di ko def majaanan di ko joxe majaanan nit ñi di ko séddale ñu koy séddale ci réew yi bu nit fi aji màkka léeg-léeg ndeysaan dama yërëm ay nit da ngay su jóge senegal dem màkk aji bu ñëwee indi ay téenaan dañ ko koo may dama koy yërëm te dama xam ne bis bu léeree téere yi rek bopp bi yàqu téere yi ñu koy séddale ci ay màkk gi ku ñëw ñu jox la ay téere boo demee sa réew nangam nangam ñoom ñu ubbi seeni université ci la égyptiens yi ñoom tamit ndax lu jiitu loolu Caire mi ngi fi woon mais foofu digg diggal boobu di 1980 yooyu réew arab yëpp dañu doon profité ngir xeex ngir mën a am dara ku ñu ubbi say réew mu nekk am ñu fa dem jàngi ci réew yooyu waaye ñi fi jugoon ñépp jàngi ñii dem Arabie Saoudite ñii dem Koweït ñii dem Bahreïn ñii dem Égypte ñii dem Algérie ñii dem Tunisie ba ñu delsee benn kuréel képp moo ci delsi mel ni mbaam xoox muy jamaaxaat wahabist yi ñoom rek ñoo fi delsi ndax kenn ku ne ba nga jàngee fa nga jànge woon dañ laa jàng rek nga delsi yor sa culture waaye ñoom rek ñoo ñëw soppi seen culture nag ngir alal dañ leen jox ak mission bañ leen sarse ci lañ ñëw nag fekkoon Ibaadu Rahmaan soso woon na ñu daal leen di gën a dooleel nag tàmbali di leen di xaritoo ñoom ñu lënkaloo asaka ji di dugg ñuy dem foofa Arabie Saoudite comme na ma ko waxoon ci bànn bu njëkk eh, eh, vidéo bu njëkk ba di fa dem jóge senegal gi di dem foofa mel ni xar mooy jële fii yóbbu ko ci geneen gétt mu tëbu bu ñëwee la muy jur fa mu tëboo rek na mel loolu lay jur moo tax ñoom loolu rek nañ mën a mel catégorie gu njëkk googu lu ne def nañ ko ci Sénégal nga xam ne eh, catégorie googu noonu lu ne def nañ ko fi ñoo leen ëppoon alal ëpp leen doole ëpp leen lépp lu ne def nañ ko fi waaye tëriwul yàqu ci dara ba tey la fi mag ñi jàngale woon mi ngi fi la fi sëñ Tuubaa jàngale woon mi ngi fi di gën di baax di gën di yokk ndax wax naa ne moment bi ñu soñoru jàngale bañ dellusi moment bi ñu dem Tuubaa fekk na jumaay Tuubaa di door noppi ñu def si juróom-ñaar téeméeri millions 700 millions CFA yu teg bi ñuy dikk dikk ba 1995 ngeen pàcc benn pàcc bi dugg ci Ibadou Rahman ba. ñu fi jógee dix neuf cent quatre vingt quinze euh, euh, dix cent soixante quinze jàngi Arabie Saoudite dellu siwaat moment bi ñu nekk foofa di jàng nga xam ne ñu ngi fi ci la fa sëñ Abdoulaye nekk fii ci dëkk bi taxawal fi daaray kaamil këru téere goo xam ne doo dem fenn fekk ko fa ci la fi yokk jumaa ji def ko ni mu mel ci la ko def ay corniche ak yeneen yu dul jeex yar murid yi ci la fi woote ñu dajale un milliard bu teg ci ay fan ba mu mujj na mat na te xa yooyu doon dajale yëpp nag du asaka du lu ñu may murid di ña nga ña ca tool yi di bay ñi nga ca marché ba ñi nga ca wataye ñi ca nàngam di liggéey di ñaq yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne alayhi salaatu wasalaam juxila risqi taxta silli romxi nee na man sama wërsëg yàlla sama xeej bi la ko def mooy damay dem xare ji ànd ak saxaaba yi di xeex di xeexal lislaam suñu gañee marchandise miñ jàpp ak bagage yi jàpp màng gi ñu séddoo ko ñu jox ma saa wàll ma dund ci ndeysaan suñ demee ba yonente bi yàlla bi di wut lu mu dunde di ñaq nguur li mu dunde yow nga ne da ngay woote sunna xalaatoo loolu lu dut ne dangay dem Arabie Saoudite ba Koweït di laaj ay asaka ci turu lislaam ñëw di ko lekk di ci tabax jàkk yonente bi musta tabax jàkk ci asaka amul benn jàkk bu yonente bi mas a tabax ci asaka amul benn jàkk bu saxaaba yi mas tabax ci asaka amul benn jàkk bu borom ñeenti ngir ah, ah, almasaahib almasaahib al arbaa masa tabax ci asaka amul kenn ci taabixine yi wala nit ñu baax ñi wala borom xam-xam yi dégg ku masa tabax jàkk ba kër ba daara ji tabax ko ci asaka ñoom ñëpp dañ daan ñaq di liggéey waaw ànd ak nag liñ fi réalisé lépp ci tuubaa ànd ak nag Touba amul pétrole amul pétrole ay tooli gerte fi ne ay tooli duub ay marché nangam nangam te ñu man loo xam ne nag kenn mënu ko jamono bi Ahmad loo di nekk di bind à 91 91 di bind téeréem boobu taq des zones asxaas ca saxoodee booba Serigne Saliou la fekk mu toj xel koom xelkom 45000 ectare tool bu kenn mësul toj waaw daanaka mën naa ab mu murid yi dafa liggéey lu ne dafa génn mu defa ay cadrement ay cadre génn fa ay boromi xam-xam yoo xam ne lépp loolu laa ci xam-xam xam nañ ko ndax fa lañ daan nekk di gàggante. ndax Moustapha Guèye mii ma lay wax moom moo fi ma soon wax ne daara Sëñ Saaliw mu tudd ko daara ju amul daa yàlla mi dara tëwut mu toog ci RTS di waaraate di di def euh, fatwa ci fiq gàkk ka ko tontu ma nga woon ca xelkom ca xosnu maab toog fa di ko tontu te masala mu yomb la masala mu yomb ci wàllu idda mu gàkk ci xamu ko waaye bi ñu bindee bataaxal bi mu jóge xelkom ñëw bu ko foofu muy jàng bataax bi mu ci agsee nangu ko wax dana rek di na bind nañu leetar bu jógee ca nàngam te moo fi waxoon daal ji amul laa ah? bi ñu dikkee ba ndeysaan Sëriñ Saliou jóge fi ba Seex Mahamadul Amin Baara ab ab ab taawam daal di ñëw jébbalu mu gën a am problème ci moment boobu sëriñ bi def xel kom nga xam ne xam-xam ñi xam ne ña fa newoon ña fa génne ci ay borom di xëy di liggéey ca tool yi nekk ca tëral téere wala ca nag ya ñoom ñooy tontu ñan ñan ñëwoon ca rajo ya ña Senghor jëloon ñu jàng jàpp na ñoo fi raw ñu toog foofu di leen tontu lu ñuy bind ci xeetu poète waaye ñuy bind loo xamee ne waxuma senegal waaye benn naar mënu koo way àggu fa masala moo leen laaj ci diine ñu waxlu te bu dee liggéey ñu la ko dàq fuuf te soxluwun ay asaka loolu la sëriñ bi produire yooyu jamono jamono ji waa ji nekkee saxonde di di fen dinaa feq di bindi téere naan day wax ci tasawuf te bindul téere wax ci ibadurahmaani wahabiste yi jamono boobu lañuy la xel toj xelkom jamono bi muy dellu si fii fekk na xel xelkom tàmbalee produire tàmbalee tasaaroo ci réew mi ay borom xam-xam dafa génne ay kaang fóore ñu bind ay kaamil moo ko moo ko bind ay kaamil yu bare bare seen loxol bopp sans ay machine te bépp masala boo fi indi ñoo la ko gën a man bu dee liggéey waxi noppi moo tax ñoom ñu bon lañu wahabis yeeg ibaadu yi mooy wër nit ku bon nit ku ñàkk nit ku nit ku complexe ñàkk xam boppam ñàkk xam ni la yàlla defal ba dajee ko ibaadu wala wahabis jàppal ci loxo bi Sénégal dañoo am complexe maanaam dañoo gëm nit ku weex ba ñoom nit ku maanaam nit ku ñuul moom la yàlla Sénégal la yàlla natt nit ku ñuul moom moo xamul boppam ñoom daal pour nasar dara weex rek moo tax sa nga gis nit ñi di xeesal ngir bëgg seen der yu weex ngir bañ der bi leen yàlla jox sëriñ tubaa nekk ci réew mi jaloore yi mu fi def li mu daj ci diine diine jalal ko ñu ñu ñu jële ko fi juróom-ñaari at jàpp juróom-ñetti at li mu daj ngir ne kenn du fay suna senante bi waaye dañ ko fi bàyyi dañuy dem daal Arabie Saoudite fekk fa benn naar boo xam ne bolok lay sol du sol tubéy ngir sobe su bari naar moom li tax duñ sol tubéy sobe su bari ndax fu ñu toll ña sàngara sa jigéen ñi sadit gi doon war a téye kii bi dafay nocc ko day mel ni yaxu jaan moo tax naar yi quatre vingt dix pour cent naar boo jël salas li ñu tuddee salasul bawli moo leen dal seen tuba yi day toq rek moo tax kenn du ci sol tuba dala ca kaw ba ca suuf waaw moom daal ñu jëm naar jël naar bu du sol tuba yi gënal ko ci sénégalais yi di ànd ak moom di conférence di ànd moom di dugg ci oto yi di moom di noos di lekk asaka loolu moo leen gënal bàyyi fi sëñ alxaaji Malick si fii à Tiwaawan mi nga xam ne moo départ fii Sénégal dox dem ba ca Màkka ak tànkam booy wax loola lislaam jaral wala lu fu keneen def ci am naar ñëwal fii Tiwaawan sëñ alxaaji Malick si moom moo départ fii si ci réew mi dox ba Màkk ak tànkam benn ibaru defagu benn wahabis si defagu ko moom ngir diini ngir añ Màkka kon ñun kenn duñu jàngal farata farata boo koy jàngale génnal Sénégal mais Sénégal dooñu fi jàngal farata aj màkk ci ponk yi la bokk farata yi la bokk sëriñ alhaaji Malick Sy moo doxee fii Sénégal ba màkk ngir joxe farata jooju kan nga dégg mu defagul Sénégal dañu ne war a yeewu bu leen toog rek ñu jël benn waaye bu mën a wax duy biir ba mu fees ak riba ak ger mu toog ñu jàng ko ay tuuti aaya tuuti ay xadis dégg nga wal bopp bi mu toog di wax neex làmmiñ ba rajo yi muy waxee neex rek muy wax rek ngeen di ko déglu ñooñu loolu du xam-xam kenn ku ci jàng ci ñoom xam-xam amul ay nettal lañ gën a man seen sëriñ bi gën a ngand ci àddina nga xam ne mooy sëriñu soo bëggee xam sëriñu wahabis dëgg wala sëriñu Ibaadu Rahmaan dëgg dëggantaan dëggantaan mooy mooy Google a sayid Google bii nekk ci internet bi mooy seen sëriñ lu ñu lay wax rek fa lañ koy vérifier amul benn téere buñ jàng baa buñ xam baa buñ mokkal Google daal lañu dem tàppe bind nangam daal di dagg photocopie ñëw teg di wax rek nag képp ñoom bu internet amut xamuñ dara gis nga bu internet bu coupé mënuñoo débat ak yow parce que jànguñ dara alxuraan sax mokkaluñ ko ñi ko ci mokkaloon ko su néew na weddi gañ weddi nit yàlla yàlla nag nattoo leen ñu fàtte ko ba lépp dañ koy yàq di ko jaxase waaw Amadou aaya bu jub sax mënatu koo wax da koy tàmbale dagg ko baa mu taam tàmbale ko yàq ko di ko jéem a réparé gën koo yàqati. kon ñoom lu foofu la ñu nekk senegal yi ñoo war a yeewu ci loolu waaw waaw ñoo war a yeewu ci loolu gis nga ibaadu rahmaan yi wahabis yi dañ leen di jàngal wax ñoom amuñu asaqaafatul arabiya ba asaqaafa al xilmiya asaqaafatul xaqliya mooy dafa tuuti lu leen mokkalal dugg ko seen bopp yi jox leen ay rajo yu neex nag wala jox leen ay appareils yu baax ñuy lekk ndawal di naan meew fee seen baat yi di jore ko suñu wax nga jàpp nañ ñii li ñuy wax fekk na dara xamuñu ko ba ca des mooy may avertir Sénégalais yépp képp ku nekk Sénégal di dund na ko bàyyi xel moytu leen daaray ibaadu rahmaani wahabist yi seen njàng yooyu ñu jàng naan dañuy tajwid ba seen sëriñ bi doon wax naan waman lam yu jawwit fa huwa asim loolu ay duul la bu dëgg loolu teguwul fenn alxuraan indi ko sunna aniwu képp ku munta tajwid boo jàngi alxuraan am nga bàkkaar loolu ñoom fi mu ñoo ko seen sëriñ ñoo ko wax waaye doonul dëgg fu mu ko teg ban aaya ñëw di wax loolu ban xadis alxuraan kay jàng ko rek waxal yax bi rek yax bi daal bu ñëwee wax nga ko moo xam da nga ko waxee salaaku wolof comme ndax olof bu nekk ni ko yàlla di mën a waxee bokkut ak naar am ñoo xam ne dañuy naaral naaral ak tajwid bokkunu naaral da ngay gis kuy nodd sax di naaral gis kuy wax alxuraan di ko naaral déedéet tajwid olof bi mën na ko pël bi mën na ko tukulóor bi mën na ko mooy maanaam jàng alxuraan ni ñu ko war a jànge waaye ne ku ko jànge wu noonu am nga bàkkaar loolu amul ndax am ñoom seen am yi dafa taq am ñoo xam ne mënuñu ko ndax làkk wañ dégg kon seen sëriñ bi waxoon loolu moom ngeen njëkk war a njëkk a kurési ci loolu loolu wérut waman lu waman lam yu jawit foofu wa asim loolu wérut wérut ñëwul ci alxuraan ñëwul ci hadis comme yéen ngeen ne lépp ñëw ci alxuraan hadis wérut loolu te yéen ñemewu leen ko weddi ndax ku ko ci weddi bis boo demee saxondee wala kowet di jëli aska daañ la bantal bantal ba boo ñëw doo sol tubay waaw ah, bàyyi leen li ngeen def na ngeen leen moytu ku am doom xoolal fi nga koy dugal ndax ñoom seen daara yi dafa am ay kat ay katu bu xale bi door a ñëw dafa am nu ñu koy jàngale tuuti di jël ay photo sëriñ di ci wékk seen pantalon seen seen pantalon yu xesaw yooyu wala seen simi rajo yu xesaw yooyu ak di ci toog ak di jog ci photo yi ngir wan na la kii simple la foofu lay njëkk tàmbale xale bi di ko yàq daan la kenn du ko gëm nangam te yow nga gëm aspirine gëm niwakirin gëm siro gëm piqûre gëm ay doom gëm meññ di fi nekk gëm lépp lu fi nekk ba naan lu toll nit na nga ne kenn du gëm ah dañ koy gëm nit dañ koy gëm xam nga lu ñu tere ci nit gëm na maanaam jël beneen nit def ko kudul yàlla loolu la ñuy tere gëm waaye nit sax dañ koy gëm. comme gëm malaaka am na malaaka nit a ko gën a foor te da ngay gëm ne malaaka am na kon da gëm ne ci nit la nituk yàlla la nit ku baax a ngi nii waaye ñoom loolu dana koy weddi loo xale bi jël première étape na ñu tam la ko jàngal loolu su jugee foofu dañ ci beneen catégorie bi mu njëkk a ñu jàngale ni ngay saaga sëriñ si ni ngay weddee daane ne képp ku gëmul ibnu taymiya gëmoo benn baas gëmoo ibnu xosaymi ne gëmoo nangam kooku am naa féq la ab yéefar la mbaam la daa lay jàngal nga nekk ci deuxième catégorie nga dem ci troisième catégorie ñu tàmmee ñëw di la neexal naa la am na naar boo xam ne ma nga saxoree ma nga ko wet mooy nangam mooy sa baay nee dalaa baayoo daa lay jox benn appareil wala benn kamil wala benn simis ëllëji wala benn koppate wala yenn daal ne moo la ko jox nga taam ñu naan kooku kan la ñu taam la jàngale pas-pasam nga nekk ci troisième catégorie ba booy àgg ci quatrième quatrième catégorie nag mooy nga àgg fii ñoom xalil lu ak amel lu àgg ak ñu mel ni ñoom ñoom Alpha Ba ak ñoom Omar Sall nag mooy fekk yàq nañ la bu yàgg moo tax da ngay gis jël doomam yóbbu ko ci daara yooyu naan alxuraan jéem a ci rey fekk loolu ñoom luñ tegle rek pour nax nit ñi yonent bi jàngale woon na ko de bam mu ne allahumma barik naa fii saamina wa fii naa nee woon na bu seytaane di génn ak fitna ji fële ca yaman ca fële ca najd dañu mën a jàng alxuraan waaye nee na weesu seen maam du agul ci seen xol yi dañuy wax sunna sunna waaye du dara danañ yàq ci diine ji loo xamee ne golo du ko yàq ci ab tool wànq du ko yàq ci gerte ni fett di boo fettee ni ni fett gi demee dagg nit ki dugg ci biiram mu ne noonu la ñuy def lislaam dañ koy xottite moo tax képp koo xam ne daara ibaadu wax rahmaan yooyu wala wahabis yooyu seen daara yooyu gón na la ba nga dugal ci sa doom danga ko riccu riccu gu weex xatt laa wax bañ tàng ku booy wër ko bañ tàng rek bañ tàng laa xam ne yambare boo dajee ak ibaadu jàppal boo dajee ak wahabis moom waxaaliwu ma ko waaw kon lu jar a bàyyi xel la na ci ñëpp def attention dëkk bii nag di tuubaa dëkkub Sëñ Touba la moo ko moom boromam jox ko ko bi ko boromam joxee ci baatin nga xam ne diggante boromam rek la ñu dem ba yàgg saayir si ñëw mooy Cheikh Mouhamadou Moustapha ñëw Touba bi ñëw jaay ko suuf si cinq millions titre foncier yi ca yooyee jamono jamono bi Cheikh Mouhamadou Moustapha di cinq millions pour jënd titre foncier Touba amul kenn ci seen sëriñ seen ku mën a génne benn dërëm def ko ci diine ci yooyu jamono benn sëriñ nag waaw waaw amul ci yooyu jamono benn sëriñ wahabis wala ibaadu bu mënoon a génne ab dërëm def ko ci néegub yàlla mu jënd suuf si titre foncier kon dëkk bi sëñ tubaa da moom ci anam yépp koo xam ne sëñ tubaa neexu la nag ak njabootam neexuñu la lan ngay def ci dëkk bi loo fiy wute dépasse loo fiy amee kër loo fiy amee ay magasin marché occas looy jéem a ñëw di théorie murid yi ñu lay financer sa daara ji ji nekk nga bu loo fiy def comme yow nee nga ñun ay yéefar lañu nee nga ñu ay musrikoona lañ waaw xam nga ñoom li lay xamal dañoo mën a fen dañoo mën a duul mooy danaa la yow musrik nga te boo leen joxee xaalis ñu jël waaw musrikoona looy doyee xaalisam ab yéefar looy doy alalam te bépp ibaadu rahma wala abisi moom doomi njaaloo la ndax ñoom ñoo ko wax comme ñoom ñoo ne ñun ay yéefar lañ ñun comme ñoom ginnaaw ñoom judd wuñ ci lislaam judd ñoom amuñu judd bu rafet ndax ñoom ñoo ne tariixa yi ak ñi ci nekk ñëpp ay yéefar ay musiko nañ te ñoom ci lañ juddoo seen sëyi ndey ñoo ko takk takk seen sëyi maam duñ juddoo ñoo leen tudd ñoo leen ngénte jàngal leen bañ xam ne li ñu war a xam njëkk ci diini ba ba nopp ñoom ñu ne ñun ay musiko nañ ay yéefar lañ comme ñoom judduwuñ ci doomi yoon kon sooy wër nit ku judduwul ci lislaam ba daje ko ibaadu wala wahabis jàppal jàppal rek ci ron ñaar tànk yi jàpp ci kaw ba bi juutal jàpp nga ku judduwul ci lislaam ku judduwul ci lislaam nag doo jàngale lislaam waaw ku judduwul ci lislaam doo jàngale lislaam te ñun lépp lu ñu def ci diine ñoo leen ko dàq ñu leen dàq julli dàq leen a woor dàq leen a natt asaka ndax yéen du ngeen jox asaka moom yéen moom asaka ngeen di dundi te du ngeen joxe asaka gën leen a wormaal yonente bi akum njabootam gën leena a war war saxaaba yi yëpp nangul mbooleem nit ku baax la sëñ sàmbay raximala daan wax naan Sénégal yàlla def leen a cëral ba ñëpp xam ne cëral na leen mooy dañoo bëgg yàlla ba bëgg lépp lu taq ci yàlla ibaadu wa rahmaani dañoo bañ yàlla bañ lépp lu takk ci yàlla ñoom daal lu bëgg mooy ak nit ku weex mbaa ab tubaab mbaa américain lañ gëm waaw moo tax ñoom ku naa la man du ma gëstu xasida yi ma ngay gëstu rapport yi waaw waaw Mor Kébé gis ngeen ko ku fi nekk ci àddina di rapport rek di misé seen rapport américain Mor Kébé xam na la da lay déglu xam na la waaye nee du déglu xasida yi moom ku fi déglu xasida yi déglu rapport yi fi way ci àddina di doon ab arab wahabi si ibaadu yi xam nañ la dañ lay déglu da ngay gis koy waaraate sax ne yow day waaraate au lieu mu teg alxuraan baa xasida waaye day dem tegi wayi arab wayi arab musique li ko musique yëpp way arab yi ngay way yëpp yi fi ñu yi ñuy way yëpp taamale ko ci Umu Kalsum ak ñëpp a ci am musique la bañay araamal musique di araamal musique ne ñoom dakkoon ci mis dagana boobu way yooyu ñoo fi nekkoon booba way yii génnagul ndax musique moom ñii dana araam na ñi ne araamul waaye ñi ne araam na bañ koy araamal booba musique sénégalais bi amagul musique africain yi amagul musique arab yi ñoo fi nekkoon ñu ne araam na boo demee ci Abdullah ibn mu ne araam na nga dem ci Abdullah ibn Mas'ud mu ne araam na nga dem ci ñeneen ñeneen ba ci seen borom xam-xam yi ñu ne araam ba ñu araama loolu ñoom ne am na koy misik ci wolof te da ñoom ëpp bu ñu waraate ñoom misik yooyu la ñuy teg waaw ku fi rek teg misik ku fi tegul tagg bi sallallahu alayhi wa sallam nii jaxëran di ko jàng nit di ko jàng àndut ak xala àndut ak dara yaa ngi fii waaw waaye ñoom ñoo ne misik daa araam ba noppi nag di daal ci kaw kii moo tax ku fi tegul loolu tamit teg misik kon bu leen ñu rey coow na sénégalais yi yow Touba gi ne dëkkub jàmbur la dangeen koy génn bu ngeen amee fulla ak fayda waaye nag yàlla moo def kuy wër ku ñàkk fulla ñàkk fayda ñàkk jom di am yambar ba dajee ko ibaaru wóor na yàlla bee ba nga jàpp ci tànk bi diri ko xamal ne bu la rawee dootoo ko gis kuy wër ku mën a fen mën a rambaaj mën a yàq der mën a xas nit ku baax bañ yonente bi bañ waa këram di wutal yàlla ay cër ay dessin ba dayee ko ibal wala wahabiste jàppal ci kawre bopp bi jàpp ci suufu ñaari pooj yi wëndi rek te ci suuf bu la rëcc téye ko bu baax te xam ne jàpp nga ko waaw ñooñu nit du leen gën a bon ci kaw suuf kon na murit yeeg xaadar yeeg tiyaani laay yi bañ koo kafe gis nga ñii kenn du leen kafe dañuy yoot gis nga ni ñu mel ci réseaux sociaux yi wut alpha bu nekk leen saxoodiya ak ñi nekk Sénégal wut ñu leen nekkal Italie jël leen ci waa waa pig yi jël ñeneen jël ñeneen jël ñeneen euh, jël alpha bu mu nekk leen ya ñuy wax lu bon gis na noonu ñuy waxee lu bon di xas sëriñ si ak dal seen kaw bis bu ñu amoon doole noonu yi lañ koy defee ñoom kay bu ñu amul doole lañu nekk di maslaa moom mais bu ñu amee doole ba jekku la xam ne man na laa rey te du mujj fenn rey mu jeex loolu nag sëriñ si waruñu ko caaxaane sëriñ si nañ ci def nañ ci bàyyi xel. fi mu ne nii ñu taxawale ay juma ay jàkk yépp ci dëkk bi ci Touba ak ci mboolem dëkk sénégalais ba Tiwaawan ba Njaasaan ba leew nañu seen fu nekk noonu lañu war a jógee xeex ak ibaadu rahmaani wahabis yi parce que réew moo dégg mu yàq ci àddina ñoo ko yàq kirim boo dégg ci àddina ñoo fi def gépp kuréel gu fi mas a nekk lislaam ñëw di la xeex muy kuréel nguur jigéen ñi ak franc yi ñoom ñoo leen dooleel kon loolu kenn waru koo tëdd di nelaw képp ku tëdd di nelaw jàpp ne mbir mi ay Sëñ Tuubaa kenn du ko xeexal de Sëñ Tuubaa kenn xeexalu ko Sëñ Tuubaa na ko boroom di def def na ko bu yàgg yonente bi mooy défense am kenn musta man ci moom dara ndax ku ñu jële fi yow képp yóbbu juróom-ñaari at laa faat lu ne ñu def la ko dugal teen dugal la ci pour mënuñ ci yow dara kon loolu jugul ngir ne ngir ragal ku jëm si ci yow waaye nag taalibeem yi ak suñ njaboot jii ni buñ ci taxawut la xew Makka ak Madina moo fi xew la génn sëtu yonente bi Makka génne ko Madina dugg biir barabu yonente bi bëgg koo toj loolu te sëñ Abdou daal waxoon na lu am solo dafa noonu lépp lu xew ci jëm yonente bi njort na mën naa xew ci sëñ Tuubaa ñaata yoon la ibaadu yi def ay koofa ak wahabis yi ak tubaab yi pour bëgg sàcc xabub yonente bi pour bëgg koo sulli tàmbalee ci biti dëkk bi di gis ay kilomètres ñaata yoon dem nañ ngeen jàng histoire ñaata yoon la ay nit ay tubaab gase ci digg ci biti dëkk ba di ronu suuf si ngir bëgg a jël koorub yonent bi solo alayhi wa sallam ñaata yoon moo tax nañ ci bàyyi xel Omar Sall yéen ñëpp seetaan nga mu génn fii dem ci dëkk yii njëkki ñag yi dëkk yi bokk te Sénégal dafa sulli ay xabru ñoom xabru liñ ci xam mooy sulli maasale jàkka toj maasale am na ñoo xam ne ñu ngi ci dëkk bi am fi ay bitik am fi magasin am fi oto te bu ñu julli dañu mën jumaa ji ginnaaw dem Mbàkke jullee ji fa ñu bari Mbàkke la ñuy jullee ji def jumaa ji muy ay xabru waa koo xam na ne bu amee doole day sulli sa xabru sëriñ koo xam ne day saaga say sëriñ di leen xas di leen jëw di wax ju ñaaw ju nekk lu mu dem ba mënu koo wax mu wut koo xam ne naankatu sàngara boo xam ne day mel ni këla nekk Amérique borom rasta yi day mel ni moom du ma tudd tur ndax kooku tudd aw turam daanaka moom dara gën ko bon ñuut ku mel noonu wala wala fekk koo xam ne bopp bi yëmbut ñu di ko saagaloo ngir ñàkk ngir am na ci loo xam ñoom mënuñu ko wax ñu wax loo ko ñooñoo ñooñu ku ne def leen war a bàyyi xel kenn warul leen a may fu ñu yàq seen làkk fu tariixa nekk ci réew mi fu nitu tasawuf nekk ci réew mi da ngaa war a jug xeex loolu bu dee ñoom dañuy jaay ci barab murit kenn ku bokk ci tasawu wala ci tariixa warut a jënd ci ab ibaadu rahmaan baa mu jënd ci ab wahabist waroo dugg seen oto waroo def seen lenn da leen a war suur ni nit di suuree ndawalu xaj ndax ñoom ndawalu xaj sax leen gën dañ leen a war a suur kenn wërta jënd ci moom fépp ku ñu am magasin wala kànkaay yére wala oto wala kër dañ leen a war a suur nële beddi leen génne leen fu fële teg leen nële ndax koo xam ne bu amee doole dalay lay rey maase la say jumaa maase la say jàkk képp kuy toog di ko xool di ko seetaan ak jël sa doom naan da nga ko fa yóbbu muy jàng ji naan daa mën a tal alxuraan yu mel noonu amoon nañ fi benn ku ma xam fii suma tuddee tur yi ñëpp xam ko dama ñëw laaj soxnaa mu ne ma doomam da ko yóbbu ci daara kenn ci ñooñu ma ne ko nee ko sëñ Mor nee na da nga ko fa jëlee ma gisaat ko laaj ko mu ne wax naa ko ko waaye nee na moom foofa njàng maa tax alxuraan dañ fay jàng ma ne ko nee ko dana ko réccu ñu toog lu tuuti at ma gis mu nangu doom ja ma laaj lu tax nga nangu mu ne daa ñëw di weddi Sëñ tubaa xale bu ndaw waa kër gépp toog di naan kafe mu mu jaar foo xam ne kenn mësu ko dégg ma ne ko lii laa doon wax gis naa ko jël doom tam yóbbu ko daaray xaliloo ba mu fa génnee baaji da ko yee jugal dem tool mu dagg mu daggal ko saagaw ndey ñoom seen daara yi noonu lañ mel am na ci keneen koo xam ne daara jii nekk Mbàkke la nekkoon dafaa jugee man daanaa ko gis mu ne ci Facebook di bind di weddi bayti sëñ bi loolu doyatu ko mu góorgóorlu ba dem Libi na day jihaad ñu dagg tànk bi mu continuer di toog ci ab puus-puus ànd ak jihaaliste yi ñu mujj rey ko fa yàllaahu ñu rob ko Libi fa yàllaahu moom génn suufus senegal damaa jëlee tuubaa te ci daara yooyu lay génne benn benn sénégalais yu bari yu nekk lii bi naan dañuy jéem a dugg ci turul parce que turul boobu aw tur la ci ñoom mais la ko la lépp mooy jaay dorog naan sàngara ak waxtu wu nañu jël ci xale yu jigéen yi jox la waaw ngay nuur buuj rek di dem képp lañ ci dugal kon loolu lu jara bàyyi xel la waaw ñoom amut luñ lay luñ lay luñ lay xalabe ci diine ñoom mënuñu ñoo xalab ci diine kon képp ku bokk ci yoonu murid wii wa nga bokk ci yoonu tijaanu ba bépp tarixa boo mën di bokk xaadir salsali yi sa njaboot na nga leen sàmm say taalibe na nga leen sàmm na leen bàyyi xel ñi ñi ferekanteel bépp dëkk boo xam da nga faa nekk tamit bu du Touba muy Dakar muy faneen te nga nekk murid baa nga nekk tijaan baa nga nekk xaadir baa laayeen xoolal sa njaboot gi daara yi ñuy dugg ñan la bu dee daara Ibaadu Rahmaan génn leen fa lu ko may danga ko ñàkk te day ñàkk diine jëm yoroon la ñuy def ci bopp ba mooy rey nit ak xas ko jëw ko saaga ko ak bëgg jigéen ak yooyu rek la def ci bopp bi suufu jigéen jugee ne day yàqu koo tudd ñeme ne ko saaga gis nga sunu borom mii xasa wa jalla ibaadu yi ñeme nañ ko saaga dañoo xam ne bu ñu ko waxee rek dootuñu am awlay mais bu doon bu ñu ko saagaa du mujj fenn nit ñi duñ leen wax dara ñu tam ne ko saaga yonente moom dañ ko saaga ba doyal ak waa këram Seydina Ali lu ne yàq nañ ko ko ñoom ibaadu wahabis yi dañoo xam ne ne bu ñu saagaa sunu borom xasa wa jàlla coow jib kon nit ñi ne kon ñi nangam boobu rek mu leen dese mais bu toon loolu gis ñoom waxum ay sëñ Tuubaa ak maa Alaaji Maalik ñoo ñu noonu sax jëlee naa leen gis nga ñooñu dañoo dañoo xam ne ñoo fi nekkal yàlla yonente bi moo tax ñu dal seen kaw waaye ñoom yàlla ci boppam buñ ko mënoon a jëlee jëlee ko fi buñ mënoon jëlee yonente bi jëlee ko ndax nañ ko jëlee ak njabootam Màkka ak man doo dem fekk fu mukk njabootu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ña fa dese ku néew te dellu ci moom nga xam ne boo toppee ñu nekk sëtu yonente bi wala boo toppee ñu nekk sëti saxaaba yi kenn ci ñeenti saxaaba yu tedd yi ñooñu fi ni boo fa demee da leen jël di leen liggéeyloo ci hôtel yi suufee leen wàcc leen ngir ba ñu am benn doole jël famille saxoot ak fenn Muhammad euh, euh, euh, jël famille saxoot ak famille Muhammad ibn Abdullah teg leen ca kaw ñoo ne ci ñooy buur yi ñooy lépp ñooy siddu asaka ji weer bu jot pétrole bi nga xam ne julli ñëpp comme dëkk soxdee dañ koy séddale ñaari famille yooyu kenn ku ne ñu am loolu lay jox ñu ngaa ko nguur gi di doxal nag kon kilifa yi nekk Tuuba ak murid yi nañu bàyyi xel yeewu seen doome gis nga alxuraani kase saxaaba yi ngay dégg ñu ci bari mukkul ñu alxuraan te kuy baax ñoo la gën a baax bi fi yonent bi jógee li mu fi bàyyi ay saxaaba yi moo ko alxuraan matul ñeent te boo àggee ci yàlla ñoo la gën a àgg ci yàlla gën laa dégg leen jàng gën a xam kon bu ñu moo ko alxuraan na ànd akub yar ànd ak discipline ànd ak gëm yàlla ànd ak warmaal nit ñi warmaal nit suñu borom yi warmaal lépp lu lislaam warmaal waaye nit ko xam boo ñëwee mu tare ay aaya tari la nangam boo tuddee nitu yàlla mu xas ko jëw ko saayo ko rëbb ko rambaaj ko boo tuddee kenn ci citoyenneté bi noonu koo tudd mu ne baaxul sa mbokkum julli mu ne ab yéefar la defe naa alxuraan ba kenn soxlawu ko alxuraan suñ koy jàng baax a tax xol bu defaru waaye nit ko xam day jàng alxuraan day jàng alxuraan boo waxee mu naa day tajwid day dugg fii nangam nangam mel ni Omar Sall baa ñu mel ni ñoom ñeneen mboolem ibaadu wahabis yëpp waaye seen xol yi maanaam moo gën a tilim mbërëg nday waaw seen xol yi comme mbërëg nday dara nekku ci ak leer amul benn xolu ibaadu rahmaan wala waa bis booy xar fekk fa ak leer boo ko xaree boo ko xaroon mbërëg nday nga fay fekk lu gën a xasaw kenn amul ci njariñ amul njariñ diine ji amul njariñ yàlla amul njariñ seen famille naar yi képp lañ amal njariñ mooy mission bi leen naar yi sarse koo xam ne yow amoo liggéey amoo dara yow daal asaka rek juddu ci bidaa yaru ci bidaa màgg ci bidaa biddi ci juddu ci bokkaale yare yaru ci bokkaale màgg ci bokkaaleel te ku tëb nga ne day bokkaale ku tëb nga ne bidaa te yow loolu ci nga ne bàyyi leen leen xel li may wax nii ay caaxaan ñi ngi ñi ci suuf di togg ñëpp togg di leen seetaan nag danañ toog rek bis bu ñoree ngeen xam dama leen a xam jàng leen bàyyi leen ci xel bàyyi leen ci xel bu baax a baax amul benn ibaadu bu baax ci kaw suuf si baa benn wahabis bu baax lu ab wahabis baax baax baax lu ab ibaadu rahmaan baax baax baax baax baax mbërëng day ko gën gis nga mbërëng day ni mu ñàkk njariñ ci diine ñoom noonu la ñàkk njariñ ci diine ji du ngeen ko mën a xam nag waaye ku leen gëstu xam ko xamuñu tus saqaafatul aqliya rekk culture wahhabisme rek leen ñuy jàngal benn tuuti aaya tuuti hadis ibnu wax ibnu Taymiya waxi benn baas ibnu ni albani yi jeex na xamuñ la neen te ñoo ñoo ñi gën a perte ci diine yàlla ci ñooñu ñooñu ma tudd noonu ñoo ñi gën a perte ci diine yàlla defuñ fi dara defuñ dara ci kaw suuf kenn du la wax ñoom luñ fi def ay sos bindi téere sos képp lañ fi def waaye defuñ ci diine ji dara ñoom biñ fiy nekk fekk ne diine ji mat sëkk amuñ benn taalif bu buñ taalif bu jariñ diine ji buñ ne Albani ci xawataane Albani lam téléphone lépp da ko xëy weddi waat ndax wéral fii weddi fii weddi fii wéral fii loolu du diine waaw ña ca sama dama leen jëlale ñu wutal sa lépp na nga toog nag ku ne nga yéefarloo ku ne nga musrikoo ne ko ku ne nga daa bokkaale yàlla loolu mooy diine maanaam bu ngeen amee lu ngeen def ngeen dem wuti ko la ca des mooy bu fi xas te rek desee ak saagaag yu mel noonu mën nañ ko de ñoo leen ko dàq téeméeri junni yoon waaye danañ ko defee ci beneen façon bu bokk te ni ngeen ko defee yéen te lu adduna yàgg yàgg yàgg li ngeen di bañ day gën di day gën di yokk ndax ba ngeen ñu tàmbalee bañ booba ñu ngi tolloon ci defar jumaa rek nag jot a toll ci ñu toll tey wax naa leen seen ponkal mi bi mu bind téere boobu ñu ko fay en quatre-vingt-onze booba la sëñ Saliou toj xelkom 45 000 hectares te lu ko lu ko lu ko lu ko njëkk tuuti ci la Cheikh Abdoul Ahad Mbacké taxawal jumaa ji yokkaat Touba woote nit ñi indi ay milliards fii ñuy waxee yéen nga xam ne fii yéen nga xam jeexal ngeen jamono ji ñu toll ñun ci lañu tabax jumaa Masaalikul naan ñaar fukki milliards suñu xaalisu bopp du yalwaande du asaka du benn naar joxewu ci ab benn naar joxewu jub dërëm ñi ngi taxawal tey université fii Touba 37 milliards CFA suñ xaalis si bopp kenn mayuñu ko kenn saraxuñu ko benn réewu naar di muñ fa di yalwaane gis nga Ibaadu Rahmaan waa bi dañoo bëgg naar yi ba bu ñu demee réewi naar yi sax dañuy def naar yi def mooy duñ sol tubéy ñoom tamit bu ñëwee Sénégal nag naan dañuy sol tubéy di cëkkal mais ku ci dem boro bu gudd ngay soldoo sol tubéy Sénégal rek la ñuy sol tubéy mais bu xasee dem ca naare pour bëgg war ne ñoom teel bi naare lañ bu ñu nee foofu dañuy duñ sol tubéy te nag niñ xasawe booy wër ko xasaw xasaw xasaw nii ngeen dimbali ma rek ku ci dox ci mbedd ba daje ak ibaar wala wahabis jéem koo fóon jéem koo jege rek nget gu xasaw lañu lañu xeeñ te nget googu yéefar yi képp koy xeeñ ab yéefar koy xeeñ ñoom nget yéefar yi xeeñ lañu xeeñ waaw dañoo xasaw waaw dañoo xasaw kon jamono jii ngeen toll ñun ñi tabax jumaa ñii tabax université 37 milliards CFA suñu xaalis bopp du xaalisu kenn demun di fenal diine ji baa ñuy fenal nit yàlla yi baa ñuy wax kenn di yàq der déedéet dañoo nekk Sénégal ñi ne ca tool ya ñii ne ca marché ya ñi ne ca biti ya di jaay dégg kenn ku ne la nga man ba taxawal tey ak te ñi ngi ci yeneen i procès yu dul jeex am alal torop nag maam xaalis niwu suñ loxo de waaye suñ xol yi moo nangu la sëñ Touba waxoon tubaab bi ca njaareem ba mu wootee ñaar fukk juróom-ñett ya Touba bi ñu ne ko yow dañ jaaxal ndax ñun ñun nit ñu nit ñi ragale lempo sax ñu ko dajale te yow dangaa woote nit ñi waxu yëmuñ ci jox la dañuy jox ba joxe seen waa kër sëñ bi ne da ngeen moom jëm yi moom xol ñun dañoo nangu te lii naari yor tey ci alal ñu suñ ko yoroon kon lépp lu jëm ci yàlla ñu def ko or koo xam ne nag day laaj asaka pour mën a dund laaj asaka pour mën a tabax jàkka laaj asaka pour mën a xas laaj asaka pour mën a jëw laaj asaka pour mën a feesal biiram laaj asaka pour mën a bindi téere kooku amul njëriñ diine ji moom kooku moom unku sax ku tane ci diine ji ñoom seen métier lépp seen tawxiid lépp mooy laaj asaka kon mën a ngeen dimbali ñu ñi ngi nuyu ñëpp di siyaare ñëpp waaye daal ngeen wattandiku ku wahabis yi gis ngeen seen làmmiñ yooyu dañ koo dàggi ndax asaka la ñuy dunde lekku naari dese naari la ñuy dunde te li jànguñu amuñu xam-xam ragaluñu yàlla xamuñu yonente bi respecté wuñ ko kon keneen taxul ñuy wax ñun ku respecté wul yàlla respecté wul yonente bi ah boo fi boo respecté wul sëñ Tuubaa kay sa normal c'est normal boo respecté wul sëñ boo respecté wul sëñ Alhaaji Malick Si wala yeneen kilifa diine c'est normal parce que ñoom respecté wuñ yàlla ku weddi yàlla weddi yonente bi kay xas waa këram ñaawal leen xas say mbokki jullit waaye waay waaye loolu jërul kii mooy nañu njëkkanteeg ñoom bala ñoo yàq ndaw ñi réew muñ mës a jaar yàq nañ ko rey ña fa nekk bu ñu toogee fii di xoole nag gis nañoo ñu yàq fii waaw waaye nag dox leen ñu dem Sénégal gii moom nekkul réew yi de du n'importe kii de dara lu ngeen fi yàq ci wax ñu defar ko ci wax lu ngeen fi lëntal ñu ñu leeral ko ba ilaa yemi diini te yéen lu ngeen di gën a jëm ngeen di gën a néew doole kenn ci yéen baaxut amul maslaa amul dara amul ku baax ci ibaadu wala wahabist ndax suñuy ñaan ibaadu rahmaan ñun ñëpp ay xibaadu rahmaan lañ waaye duñ ay ibaadu ay xibaadu raxmaan lañ ñun ñëpp xibaadu rahmaan yàlla jàngale na mi mel waaye ku leen a ibaadu rahmaan laa laaj ko rek seetal aaya yooyu yàlla di wax ndax ma nga ci moom aaya yooyu suñu borom di traité mbirum ibaadu rahmaan amul benn jikko ci jikko yooyu alxuraan di jàngale booy gis ci ñu tuddi seen bopp ibaadu amul ci ñoom wa ibaadu rahmaani allasina yamsuuna alal ardi hawnan wa isaa xaatum jaayilun xaalu salaaman loolu amul ci ibaadu rahmaan yàlla ne foo leen fekk ñu yaru la ñu doon ndànk la dox ndeysaan am discipline soo waxee ay sax ñu wax jàmm waaye mas ngeen des ibaadu rahmaan buy wax jàmm wala waaris buy wax jàmm kon ñoom bu ñu tuddee seen bopp luñ doon yàlla ne dañuy fanaane julli fanaane woor fanaane jéggalu du ñu rey benn bakkan ci lu lislaam ñoom laaj leen ñoom bakkan yi rey lépp ñan lañ rey ñoom ñin rey ñëpp dala ko ci Muhammad ibn Abdul Wahab ba fii may wax yéen képp koo dégg ñu ne ibaadu yee ko rey wala wahabis yi da daan julli di woor di nat asaka di dem màkk gëm yàlla ak bi ñu rey ko ci wuute ay masala ci ne gëmoo Muhammad ibn Abdul Wahab wala gëmmoo benn baas wala gëmmoo nangam wala dangaa julli def nangam masala yu sew sawaan yooyu ci lañ rey ñëpp yàlla ne way saa maroo bi laxi maroo kiraaman mu ne bokk na ci màndargay ibaadu rahmaan même bu ñu rombee lu neexut yàlla yàlla ne ñooñu dañ ko romb ci discipline ci yarute ci maandu waaye ñoom duñ ko def de ne fi naan ku màggali nangam ku gàmmu nangam ku dugg nangam diw yéefar seen sëriñ nangam nangam di xas rek nag mais kon aay yii yàlla di wax ne ibaadu rahmaan nii lay mel jikko yooyu yaa ngi koy fekk ci murid yi yaa ngi koy fekk ci tijaan yaa ngi koy fekk ci xaadir yi waaye doo ko fekk ci ibaadu kon tudde sa bopp loo doonul problème fu ngeen dajee ko ibaadu rek wala wahabi si seet leen aay yii suñu borom di waxee ne ibaadu rahmaan lay mel du ngeen ci gis benn jikko buñ amee ñoom waaye fépp yàlla di melal saytaane ba nit ku bon ba taaxut jikko yaa ngi koy fekk ci ñoom ku yaakaar nag man nga fee wax luñ xamul yaa ngi nax sa bopp lu leen neex na bee ba nga def ko kuy njabar ba ba nga njabar kuy dem Inde demal Inde kuy dem Turki demal Turki kuy dem Siin demal Siin kuy dem ci réewi naar demal ci réewi naar yi foo mën a dem téere boo mën a jëfandikoo lu ñu tee wax kenn mënuñu arrêté pour mu leer leen ndax ay njabarkat yu mag ngeen xam naa leen bu baax doofu ma jënd jëpp ma waaw seen digg yëpp ay ndomba ngeen takk ndomb yi ay deru xaj lañ ko ëwee lu ne ngeen di def waaye lu ngeen mën di def leen doo ngay tax ñu bàyyi leen mooy ngeen maanu ci suñ sëriñ si maanu ci suñ tasawuf gi suñ diine lislaam ci mënu leen ko lu ngeen ci góobe ni ngeen ko gar tàmm ngeen ku jug ngir leeral seen mbir ngeen tàmbali koo njabar lu ngeen dugg ci waaye defagu leen sax xamagu leen li xew xamagu leen xew de waaw bu ngeen laajoon tubaab bi du ngeen dugg ci suñ tubaab du ngeen dugg ci yi da ngeen seeti leneen da ngeen xamul rek da ngeen di jaay reewande ne fi di kalaw kalaw yi ay acu ñu dem waaw jërul nag médiation maa ngi leen di fàttaliwaat tamit ne képp ku ma yónnee message ci Messenger bi tudd Ahmad Lo wala Amet Lo wala nga tudd di leen jéem a défendre baa ngay def benn médiation ci ñoom danaa la liste noire baare dama lay baar loolu moom ko ci réewu ci man nekkuma ci messenger ba di wax messenger sama messenger leen laa fay def mooy nuyoo jàmm sante sant sañ Tuubaa bëgg sëñ Tuubaa noppi naa ci wala sama liggéey mbiri àddina waaye ku fa dugg di ma message naan boo waxee néeg boo tuddee néeg dégg nga nangam dama lay baare moom nga génn sama sama sama kii kooku moom gafuma ci réewu ma ci man nekkuma ci messenger di waxtaane ay wahabist wala ibaadu rahmaan ku leen fu tudd ma baare laa koo mën a doon koo mën a doon boo leen tuddee di jéem médiation di jéem a toléré ma dagg la nga dem seetal la neen waaw yooyu moom kafuma ci wax naa ko ñëpp nag sama message néew ma fa di waxtaanee xaliloo ba amet loo ku fa dugg di fa wax di jéem a médiation def fasaata di jéem a def ay équilibre di jéem a wax finance suñ tubaa nee nangam ma ma def la ni ñoom man suñ tubaa kafuma ci réewuma ci ku may jote ci moom laa jote ku bañ ñu jote nag wala ñu wax ci bul tudd suñ tubaa maandu ci rek mu jeex nga wax la neen wala boo dul Sëriñ waxal ci diine waxal ci ay téeréem li bind ci lislaam waxal joroo leen fi def ci lislaam waaye man nekkuma fi di tolérance nekkuma fi bëgg kenn lu ko neex bëgguma intérêt kenn waaw man intere kenn dabuwuma ko benn intérêt képp lay dabu muy sëriñ bi dabuwuma leneen xaritowuma ci bëggantewuma ci wutuma ci lenn ku bañ daal ma tudd sab xarit nee leen ko mu maandu ci sëñ Tuubaa maandu ci yoonu murid bi du ma ko xaritoo wala nit du ma ko wutaale nit intérêt adduna bépp boo ko yàlla bindee ba fii may waxee ak yéen lenn lu tax sëñ Tuubaa lu mu tuut tuut moom ma ko gënal kon du ma ko weccee ngeen xam loolu kon képp ku yéem a def médiation di jéem def ay négociation naan xam nga amet loo mbokk laag xali loo mbokk laag dugg na fi sema fu man du ma mbokkook mbërëng day du ma mbokkook unk du mbokkook xaj du ma mbokk ak mbaam xuux du ma ko xaritoo towaale waaw ndax man képp koo xam ne ci kaw suuf yaa ngi dund li féeg maa ngi dund ci kaw suuf si képp koo xam ne waxuma la Sëñ Tuubaa waaye am na lenn la naqare ci yoonu murid yi am na loolu fay naqare wala loo loo àndut ci yoonu murid loo àndut mbërëng day mbaam xuux ak kunku ñoo ma gënal waaw képp ku man di doon nag ci àddina loo man di yor loo man di xam foo man di nekk ci àddina bu fekkee am na lenn looy naqarlu ci yoonu murit wi kon suñ Tuubaa mu ak njaboot gi jëlee naa leen baye boo nga xam ne nga dugal ci sa esprit dugal ci sa ruu dugal ci sa jëmm ne mbaam xuux ak mbërëng day ak yooyu ñoo mën a gënal ku leen tegoon teg la ma ma jël yooyu noonu wàcc la fa waaw ñu ngi nuyu ñëpp di seeyaane ñëpp di ñaan suñu borom mu defal ñu tawféex defal ñu ndimbal di fàttali Sénégalais yëpp. na ngeen wattandiku ibaadu rahmaan wahabis yi man dama leen a gëstu xam neen kenn ku ci baax amut buñ taxee fi di wax ay aaya bay jooy jooy yooyu dañ leen koo jàngal di wax ay xadis bay jooy dañ leen koo jàngal bu loolu dañ leen koy formuwaale boo jàngee baax si aaya sàngam na nga jooy boo tuddee xadis sàngam na nga jooy soo waxee benn benn saar ci alxuraan na nga yuuxu mel ni ko ngenkale ko affaire yi mbaam xuux yooyu ñun nekkuñu ci nit day ragal yàlla ca kaw ba ca bopp ba waaye ragal goo ragalu jigéen la rek dañ la ko inventé nii moo tax ñu bari ñoom da ngay bu ñuy jàng di jooy jooy yooyu du ragal yàlla de du bëgg alxuraan du xam ko dañ leen koo jàngalaale dañ leen ko formé waale ni mu amee ci musique yi nga xam ne da ngay gis bu ko dalee ci télé sax soo waxee ñaari baat ñett daal di jooy yonent bi nee woon na alayhi salaatu wasalaam isaa tamma malaka xay na yi xay na yi fa baka mata shaa nee nit ki bu ak caay caayam mate saa su bëggee jooy jooy kon seen jooy yu bari yeeg seen ngenkaliku yi ñuy wax ak seen waratee mel ni ku yuuxu ca kaw ak ne ci men bari yeeg di ngenkalikoo bu dara moo xaj buy ba wayam du dara xaj yuy baw sax leen tane kon yooyu bu mu leen ci nax ay damaa bëgg sama doom mokkal léegi déedéet nit dañ koy yar jàngal ko li fi Sëñ Tuubaa def doy na sëkk ci àddina li fi Sëñ Si doy na sëkk mbooleem njiitu tarixa yi ñi fi nekk ñëpp Sénégal nekk ci waa tasawuf dañ fi def benn sëkk ci njàngale ñun soxlawuñ njàngaleem Albani ak Ibn Usaymin ak benn baas ñooñu soxlawuñ leen parce que ñooñu duñ ay référence ci diini duñ ay référence sax ci àddina ñoom bu doon ay référence référence luñ doon mooy xas ak jëw ak yéefarloo nit ñi ak weddi ak def leen ay bokkaalekat rek lañ fi nekk woon waaye ñoom amuñ benn ci duru xam-xam luñ fi liggéey pour mu leer kon na leen nit ñi wattandiku la may tëje nag mooy di yellu di yeesal suñu njëbbal ak bëgg sëriñ bi ak di leen fàttali lu fi waay bañ Sëriñ Tuubaa danañ ko ko bëgg lu fi waay contre Sëriñ Tuubaa danañ ko ko gëm lu fi lu fi waay wax ne da koo naqare ci yoon mu ba am na ñun loola neex nañu neex nañu ba faw waaw te saa suñu xëyee nag bëgg ñu ko bëgg dañ ko yokk moom loolu kum naqari bee ba nga teel a dee fa yàllaahu ñu rob la fa yàllaahu malaaka yi duma la